xabaat bii lu jàmp la Cheikh Ahmed Cissé nee ngi jàpp nañ ko ginnaaw ay wax yu mu wax ginnaaw bi nga xamee ne waa ONG Jamra dañoo déposé seen ak ko ak plainte teg ko ci procureur ak yeneen ci ay wànqaas yu yëngu ci wàllum yoon fii ci réewum Sénégal ngir ñu bàyyi xel daal ci wax yi nga xam ne mi ngi koy wax ndax jàpp na ne wax la yoo xam ne yu wat xotti worma la ci islam itam wax la yoo xam ne itam bari na dañu mu naqari ci rot na ci diine islam nee ñu ki nga xam ne moo di procureur nag joxe na ndigal ñu daal di koy jàpp buñ sukkandikoo ci seen news ba tey bu ñu sukkandikoo ci seen nañ Mame Makhtar Gueye moom itam neñu wooloon nañ ko sax ca cybercriminalité ngir mu gën a indi ay leeral ci tuuma yi nga xam ne teg na ko ci kaw ki nga xam ne moo di Cheikh Ahmed Cissé te tuuma yooyu bokk na ca ay wax yu doy waar bokk na ci comme yooyu wax ay wax yoo xam ne daal yu doy waar wax ko ci jàkkaak e ba tax daal ki nga xam ne moo di ah, Cheikh Ahmed Cissé jàpp nañ ko ci xotti war may li nga xam daal mooy barab yoo xam ne dañ faa war a jaamoo yàlla mu xotti war ma ja moo tax ñu daal di koy jàpp bu ñu sukkandikoo ci seen news